asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki réew mi ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp di leen di leen siyaare bu baax a baax di am kàddu yu gàtt rek yu ñu yëkkati si eh, turu taalibe yi nga xam ne yëpp yëpp yëpp yëpp ñu aju ci Cheikh Mahamadul Bachir mu sëriñ Abdul Xaadir ci turu taalibe yi turu donga it laay wax li may wax waaw di naqarlu rek ci wax yu ñaaw yi nga xam ni journaliste yi ñu ngi koy yëkkati di ko jëmee ci eh, suñu kilifa gu tedd googu nga xam ne amuñu ko dul moom yaakaaruñ ko dul moom ñuy ñaan ci ñëpp rek ko xam ni moo xam journaliste nga moo xam loo mënti doon nga dimbali ñu ngir yàlla ak jëmmi Sëriñ Tuubaa nga bàyyil ñu ko fi rek ndax eh, nekkuñu ay nit ñoo xam ne dañuy dañu nekk wéras wala ñu nekk ñoo xam ne dañuy histoire kat déedéet dañoo bëgg dund ci jàmm ak ñëpp bëgg a ak ñëpp jàmm waaye nag muy koo xam ne itam dañ ko yemalewul dara ñu bëgg kenn ku ci nekk nga xool ci sa kilifa buñ ci doon wax ci moom lu ñaaw du la neex kon boo ko ci kilifa ak jàmbur war ngaa xalaat bu baax a baax a baax ni du rafet kon ñi ngi ñaan képp ku nga xam ne da ngay bind yaa xam loo mën a def ah nga di ko laaj baaxam xam li muy wax lan la wala nga di ko déglu sëñ bi tëjuwul kenn ku fa ñëw boo ko bëggee laaj loo ko bëgg a laaj man nga ko laaj mu tontu loolu mu ciy wax te nga bañ a dégg ci àll bi wala nga yaakaar rek di wax ndax loolu li muy def ci erreur bari na te boroomu njaboot la te lu bare bare bare bare itam bu ko nit de def mooy naqari ay nit ñu di ko muñ mu koy def ñu naqari ñu koy muñ dana am bis ñu jéem a fajal seen bopp te boobaay mën naa ëpp xëy na fan bëggoon neem fan fayam kon daal ñoo ngi ñaan képp ku di uh, bindkat ci loo mën a binde ak binde nga xool ko bu baax a baax a baax baax xam ne sëñ bi borom njaboot la am nay taalibe yoo xam si ni maanaam yemali wuñ koog dara te it kenn ku ci nekk nga jël mbuum rek nga nattu ko sa kilifa ndax bu doon sa kilifa dañ koy wax lu ñaaw wala ñu koy wax loo xam ne rafetul du la neex kon daal ñu ngi koy ñaan Sénégal yëpp ku mën di doon rek bala ngay waxati sëñ bi dara nga seet ko bu baax a baax a baax Euh, te xam ne it nag euh, nit mënut a dëkk ci di muñ nit moom mënut a dëkk ci di muñ daana dema dem ba muñu kaayam bu jeexee itam rek la fa jëf lafa fa sës rek mooy jëfandikoo xolam bañuy jëfandikoo xelam te boobaat mën naa indi leneen kon ñu ngi ñaan képp ku dib jullit rek nga dimbali ñu ci ah ngir yàlla ak jëmmi mm. Sëriñ Tuubaa